Pour que nous suivre ñu ngi di nuyu di dalal émission portrait yaay can.

Sénégal Maroc jàpp Espagne Ousseynou Thioune mu ngi wéy di top passion am di ko dund fépp fu ko mëna a bi la passion mu am ci football moko ko soriloo ay mbokam waye mu bolé lepp top bal bi. ginnaaw saison bi am solo bi mu def foofee ci Nastic Tarragona ci deuxième division championnat Espagne mu dellu ci ay mbokam fi ci Sénégal. ça fait longtemps que ñëw Sénégal presque un an donc may passé vacances yi neex ak sama famille donc le source de motivation là en plus de ñëw pour ressource tamit gis ñi nga xamné ne démb man ak ñoom ñoo nekkoon donc lolu daf may day tax ma sama saison bi ma passé nekkaat encore tout frais pour mëna a ak ak ak ben force ba nga xamné mëna ma permettre ni ma continuer euh, sama ligue tranquillement bobu les championnats ci Espagne mu egsi ci anam yu xaw metti métti club bobu dynastique Tarragona nekkoon ci ay jafe-jafe moom itam mu doon découvrir football espagnol. le début était difficile hein, parce que dafa métti woon bi euh, championnat bi nga ne ah, xamoo championnat bi ni en plus ku xam Espagne championnat bu baax la. donc euh, mun naa wax ni sama sama première semaine dafa parce que juste deux jours équipe jël vacances donc mu amoon choix ñëw Sénégal vacances wala toog liggéey donc ma préféré toog toog liggéey. Pastefam ak gëm-gëmam ci ay qualité am tax mu teel a wane boppam foofee ca Nastic. ci la ci la ma coach bi defee confiance parce que bi ma doon ñëw daf ma waxoon projet de jeu ma xam que loolu mën na ma permettre euh, ci sama euh, ci sama football ma ne ma ne pourquoi pas dem même fekkee ne équipe bi seen position baaxul mais au moins dinaa jéem a am dara li nga Il am visibilité. Euh, ci 19 match yu mu a euh, ci saison euh, performance yu am solo mu titulaire ci équipe bobulé di findel talaam mom bi nga xam a moom mujjee ci groupe d'après sama coach bi ak ñi saison bu tout parce que am am manqué pour moi ah, def plus mais comme je suis de a championnat en plus 6 mois parce que joué à 19 matchs tamit donc je euh, naa wax euh, coach confiance en plus sans mes performances, Moi, moom 19 matchs parce que ce n'était pas facile et nga ñëw euh, juste mercato bi ah, ah, d'entrée nga titulaire donc du coup. il faut coach bi vraiment confiance pour pour jouer 19 matchs. Euh, pour xam fi chose, a faw nga dem ba Kolda euh, Fofé, la gane aduna. Kolda la même si que màggee parce que après ci laa ñëw sama gale tonton euh, moom moom yóbbu à mais ñi ma xam ñi xam suñu famille ñi xam ne ay ay Kolda lañu. Kolda sax la ay balam yu école football Pépinière Sud. maa ngi Kolda ci école football à Pépinière Sud.

mais jàng bi mu nekkoon moom mu nekkoon sama sa li nga xam ne moom laa gënoon bëgg football dama dama koon def nii pour simple plaisir wala passe muy ñëwaat ci jamono bi muy def test foofee ca jàmbaar daanaka amu ci woon sax yaakaar waaye ginnaaw test yi ci la ko recruteur yi daal di seetlu woon gisoon ni am na talent. Ah, bu doon nelaw ci mom jambar bi muy c'était un peu compliqué parce que bi muy yéeg yéeg yéeg si pour def test yi parce que ñom parce que motal lañu sent sent test yi donc du coup sam tonton bi mu gagné mais ni c'est trop tard mais euh, vu que dafa amoon ben jour blessé gars yi dugal ma ci ci la ci la match bi ji jeexee xaaruma sa résultat yi ma ñibbi directement parce que damaa xamoon ne que peut-être gars yi ma dugaloon ni pour motali ren. amoon espace bi ma le la waa jàmbaar woote nee nañ sam tonton foog mu andiwaat ma léegi sam tonton nee na mënul ñew donc jàmbaar yi yooyu yónnee chauffeur pour xoolaat ma. 2011 japp 2016 Thioune bokk ci équipe bu jambar di def euh, formation. 2011 dans la Ligue 2 J'ai naa joué la Ligue 2 ensuite ci dans la première division donc 2012 j'ai nekkoon suñu première année euh, bu ñu perdre championnat bi euh, chez nous à Jambard. Casa Sport ñu moo ñu ci équipe bi depuis lors euh, mun naa wax ni que gënuma ci équipe bi depuis 2012 jusqu'à 2016 ma ngi si équipe jàmbaar bi. mu demoon sax ba def ay test ci club français bi di Olympique Lyonnais waaye euh, mujjul en tout ndax ay jafé jafé ci mbirum keuyit donc euh, jot naa am ay ay contact yi nga xam ne dama doon dem nekkoon à Lyon mais du coup mënoo amone du temps, donc du coup mënoo won des foofu. donc jotoon nga def ay test voilà demoon na fa deux fois après problème âge moi moo parce que am na centre de formation nga xamné bo boo amul 18 ans mënoo fa toog surtout boo nekkee étranger donc du coup loolu moo tax ma préféré ñëwaat euh, jàmbaar ensuite euh, que jouer na ci équipe première bi donc euh, mun wax tamit peut-être heure heure mo moo jot loon tamit. champion Ligue 2 champion du Sénégal wala coupe assemblée à coupe de la Ligue yoyé trophée yëpp Ousseynou a gagné ko ak jambar doon fo football ci jamono yoyu comme milieu terrain ta muy dem ci bitim réew. jambar parce que ben coupe mo manqué woon naa mooy coupe du Sénégal donc a ak jambar gagné la Ligue 2 bi champion Ligue 2 bi champion euh, en 2011. donc nek la vice champion du Sénégal en 2012 nek champion du Sénégal en 2013 jël coupe euh, assemblée en 2011 2012 2013 je pense que 2014 je ma euh, à coupe de la ligue euh, bi ma juste avant may dem Maroc c'était en 2016. été à Tanger et ab club marocain. Le Ousseynou Thioun ñëk football bitim ginnaw CAN U23 bu am solo bi mu ci atum 2015. jamono bo xol man milieu défensif ak centre bi ak central ma arrière droit arrière gauche milieu offensif mëna wax ni que quatre postes ko lu défensif offensif offensif dafa bon poste milieu défensif donc euh, comme pivot wala wala comme comme comme demi milieux terrain wala comme milieu offensif donc le moo nekk sama poste yi nga xam ne ñëpp moom ci la ma ci xam ne ci milieu terrain intégration am xawoon na métti tuuti li ko doon indi sax di kàllaama arab bi nga xam ne moom lañ doon làkk foofee ca Maroc waaye loolu terewal woon talent Ousseynou feeñ ci terrain bi. bon après juste CAN euh, U U 23 yi. Euh, club marocain nañ ma gis de defal seen proposition mais au mais au début dama doon hésité parce que beaucoup moon dem donc tu la ci la waxtaan ak président Jajamba bi Sayar mu yëgal ne ma que euh, kii bu baax la idée bu baax la pour moi. dem donc euh, ci laa ko defee confiance mais regretté wu ma ko bi Maroc c'était un peu difficile tamit même mais j'étais préparé à ça parce que jàmbaar gars yi lay préparé Tu, tu, tu le lu donc bi ma demee justement intégré premier match je suis commencé jouer titulaire depuis lors gënuma ci équipe mais non mais mais non une tactique bi parce que boo xoolee ñun ay footballeur la donc du coup système jeu coach bu mu andi adapté C'est juste peut être langue bi parce que Marc boo xoolee naar naar lay arab donc du coup nous ñu nga français donc du coup loolu handicap Là. donc il faut faire laay c'est intégration mais pour le reste euh, moi, je pense que aw ma problème. Bouesso Jambar, aussi une tournée, euh, teel intégré équipe nationale du Sénégal l'équipe euh, équipe nationale locale bi U20 yi wala sax U23 yi yooyu nak mo am ci lu 42 sélections boko bolé di gëna a euh, talent mun n'a wax ni que 42 sélections en équipe nationale boo jëlee U20 U23 et nga jël équipe nationale locale ak benn bu A ah, mun naa wax ni A A prime donc boo les lépp am ci 42 sélections diggante U20 U23 équipe nationale locale ak euh, A prime wala A donc jot ci am 42 sélections sans compter euh, nekk champion champion d'Afrique si euh, Jeux africains tout récemment en 2000 en 2015 avec l'équipe nationale olympique bu ñu gagné euh, Jeux africains à Brazzaville. mu ñuy xamal ni sax am na ay contact ak entraîneur bi di Aliou Cissé nga xam ne ci jamono yi moo yor équipe nationale bu Sénégal Aliou Cissé sax yoroon Ousseynou Thioune ci équipe nationale olympique bi donte sax lu saa su ne la ñuy faral di déggante. rêve possible mais le loo gis. Euh, mën naa wax ni que da nga étape étape par étape la parce que coach bi xam na xam na ma nekkoon naa capitaine pendant deux ans yoroon na moom yoroon olympique. Ah, coach Aliou Cissé donc du coup yaakaar naa ne que moom xam na bu baax mais le mais Sénégal mën naa wax ni que yaa bëri ay ay joueurs donc ñëpp mën ñëw sélection donc lu ñu def mooy coach bi choisir euh, les meilleurs actuellement du la nekk def muy choisir les meilleurs yi nga xam ne moom la yaakaar que mën na apporter dara donc yaakaar naa ni que moom coach bi mën nañu ko bàyyi mu def liggéeyam. Je euh, yu jour que euh, il va répondre présent. Oui, de temps en temps parce que mon moom ñu relation bu parce que en plus euh, coach la mais mais mais ku nekk da parce que ngi li donc du coup pour ñu déggante de xaw et tout mais de ay relation club bi mu nekk Tarragona milieu défensif la le football léeg a évolué mu évoluer comme faux numéro 10 ay qualité technique am ak volume de jeu bi mu am waral mu nek joueur bu polyvalent. bu ma comme milieu défensif comme pivot mais avant ma avancé loo am na match yu nga xamné varier pivot milieu offensif comme mun comme faux 10. D'après après sama coach ci li wax technique technique baa fi physique baa fi en surtout li ko gën neex ci man un athlète.

muy ay joueurs yu bëri lu ñu bokk ci mbirum football ba tax na sax eh, kii di cuun di ko roy ci lu bëri. man ak Gana parce que même même profil lañ yor loolu dam ko man moom nee na waxtaan ci loolu depuis mu nekkee xale sax et tout parce que ñoo nekkoon jàmbaar te bokkoon nañ. Eh, ah, bokkoon nañ classe de quatrième à jàmbaar. voilà sa Gana Gueye donc daan nañ ko daan daan nañu tooñee loolu sax bu nekkee xale yi tout voilà donc il a évolué. presque jeu bu mu yor ma yaa yaakaar na ne que yor naa jeu bi nga xam dafa ñun ñaar ñoo ñoo xaw a donc tay bu mën a xool tey ki may ki ki nga xam ne war naa mën a ci mom man je pense que l'exemple bu gën bu gën yomb te bu gën bu nga xam ne sorowul mooy mooy Gana Gueye. intelligence de jeu effort ci terrain bi ak gëm boppam di liko ko marqué ci Gana Gueye. joueur boo intelligent rek yaakaar naa sa progression day gaaw te Gana il est intelligent parce que boo xolé sa nga xam

bëri na ay équipe yu teg seen bët ci moom ci mercato bi lu ay équipe yu championnat de di Suisse France Belgique Allemagne ba ci pays du golfe yi. am quatre pays yu nga xam ne se ba Espagne France de mën Allemagne que Suisse ak surtout pays du golf mais man dama japp ne pays du golf c'est un poteau. Euh, ci mujjantal bi nak mom Ousseynou Thioune euh, diñu xamal ni fofé ca Sochaux euh, nek club de deuxième division du championnat de France fofé nak le mujjee signé un contrat bu 2 ans ñuy fatali ni rek Chouchou, qui di ancien international sénégalais bi di Omar Daf moy coach bi. Euh, football Real Madrid nek reevam moom Ousseynou Thioum mu ñuy xamal ni nak wa Real li ñuy football def ci gis boppam bu baax. damay rêvé jouer Real Madrid parce que mo nek sama équipe de cœur mo nek équipe bi nga xamné ne moom jox vecteur euh, sama may football malgré que euh, Barcelone mu ngi fi moy gëna jouer Real mais jeu Real bu ñu am moy mooy jeu direct té man sama football bi football voilà fu la identifier sama sama bop ci ay souvenirs yi ko gën a marqué. Ousseynou Thioune di ñëwaat ci saison bi ko gëna metti ba muy nekk fofé ca Jambar loolu dina xaw compliqué xana Jambar parce que Jambar euh, metti on na méttiwul quoi metti on na métti demoon am na année demoon ba xadi bëgg bëgg ki kii demoon naa championnat Sénégal amatu mo sans envie damay jouer sans envie et tout. parce que peut-être que yag ci benn milieu tamit mun na parce que à la fin bo yàggee ci benn milieu do xam ndax yaa progresser parce que les day routine yow année bi nga saison parce que concentré moins, je me suis dit que voilà lu may def ni routine donc du coup ci ay problème la la la la a ak jàmbaar. na ay jafé jafé yu yenn jour yi di am ci dëkk yu si melni Maroc momilé ci ñuko ginaaw bu mi nek ci club bobu di Ittihad Tanger mu di mbokk joueur yi loolu moom réputation Maroc la parce que li lay proposé ak la fay fekk et du benn mais yaakaar yaakaar naa tamit euh, problème yi tamit du si ñoom et du si jour bu war a dem signaler tamit parce que boo amee entourage bu baax yaakaar naa ne que mënoo am genre problème yooyu parce que contrat bi avant ñu koy def ne la koy envoyé avant ngay dem donc du coup ñoom problème yi am mooy que ñoom problème année la ñu am des fois mu ne la wax deux ans et nga dem foofu ne la trois ans mais loolu li si dépend jour parce que lu arrivé na moom

ba ouais, maa ngi leen di di remercier parce que seen ligue il na tout parce que Sénégal n'ai yi sur soxla donc euh, dem di découvrir joueurs yi nga xam championnat bi ñi nga xam ne ay ay expatriés lañu ñi nga xam peut-être que ni ngi ni ngi jog gars yi xamu xamaguñu len. donc man je pense que vous faites du bon boulot voilà ni ngeen ko nous cadre magnifique nous place du souvenir nous avons vu des artistes des hommes historiques marqué le continent Bruno Merci El Abedi Pelé Mohamed Ali kon une euh, émission portrait yaay kan tey ñu dalal nous avons ci Maroc fantastique euh, Tarragona mu def ay performance yu am solo mom Ousseynou Thioune de ngeen limu wax ci ay ambition D'engen ngeen itam euh, limu wax un peu euh, ci football bopam ci style joueur bi mu doon ñu ci jaajeufal nak bu baax suñu collaborateur yi nga xamné japp nañ ci tournage bi di remercier bu baax suñu cadreur Buri Mbaye ci image yu am solo yi nga xamné mom lañu don ñu di leen jox rek di dajé ci sen benen numéro portrait yaay kan